mbokki Leewtoo ñu ngi leen di nuyu bu baax fi ñu leen daan nuyoo di doole baalu ak baax tey baal ñëpp ak ci koor gi eh, di ñaanal ñëpp dam ci ko sàkk ci yéen di nuyu équipe Leewtoo bi yëpp. tey ñu ñëw fii ci Pikine Pikine ñëw ci fi nga xam ne moom mooy garage Mauritanie ah ndekete Pikine am na garage Mauritanie ñëw fekk fi benn champion muy champion ci biir champion yi ñu koy wax Ibou Senghor numéro de gars yi xam ko ci lutte simple waaye nag muy bëre tam bëre dóor Ibou Senghor ñu ngi lay nuyu biram maa ngi leen di fay ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci bu tëdd bi di sant suñu ñaari waajur dina la yow bu baax a baax a baax a baax di nuyu sa équipe bi di nuyu Aïssa di nuyu waa Akhlo Café bi fii di nuyu sam booy bi ma àndal nii booy maroon di nuyu waa Pikine yëpp ñu ngi lay fay bu baax ne yàlla na yàlla nangu ñaan yi Ibou Senghor ñu ngi ci weeru koor de mbaa ngi woor non maa ngi wóor maa ngi wóor mais wax dëgg terewu ma dara wax dëgg maa ngi entraînement normalement vraiment maa ngi doon doo siyaas laay doon sama diggante ak yàlla 5 heures damay dem entraînement su ma jógee fa lu ma dogee ba ay 22 heures 0 minutes ma dugg saal fa laay ne ba ay minuit mooy ma door a ñibbisee ñëpp seede nañ ko billaahi walaahi waaw wax dëgg terewu ma maa ngi wóor maa ngi def lépp wax dëgg parce que weer bi nee nañ promotion la vraiment wax dëgg man lépp lu may def ba heure jaamu yàlla jot dama koy dem defi ñëw toogaat ñoo wax dëgg ñett ñoo ma seedeel loolu vraiment wax dëgg waxtu dul ma ko tardé weeru koor man du ma ko ko sax billaahi yàlla xam ko billaahi waaw. Senghor bëri nga lutte avec frappe ñaata combat nga. man maa ngi ci 11 combats 10 victoire waaw am naa 11 combats 10 victoire benn défaite benn défaite. Eh, King Kong Fass moo ma daan waaw te boobu jamono xele rek mais damaa jàpp ne bu doon jamono yi ma nekk nekk rek téere du am dara ci man jamono yi def maa gënoon na ni yoon birik ëpp ma doole mais bu doon jamono bi ma ne ni nii nii nii bon defet boobu duma ko limaale kooku moom xëy na damaa ab sarax la rek waaw la rek loolu laa ko jàppee ko waaw damaa dese woon xele rek sama doole desoon man looloo taxoon loolu xew sax xew mais bu doon jamono yi ma ne nii di wax ak yow du am ci man dara moom xam na ko sax moom xam na ko bu baax ndax bu ma daanee ba léegi daanul kenn dañ koy daan rek bon bu mu daanee ba léegi daanul kenn bilaahi bon xam na ne lu ko war lu taxoon mu daan moom xam na ko bu baax a baax aussi itam ma amoon waa suñu école jafe-jafe bu ñu ma suspendé woon quoi génne ma ci opel bi combat bi 10 jours laa ko paree suñu école waaw barki yàlla ma dem ñu daan ma bëri bu miti lañ bëri mu ëpp ma doole ci combat bi trop moom li ma koy wax ni xam na ko non dañoo bëri bëri bu yàgg après bu ñu jàppante ci suuf dooraat ay perkel mu sakki ma ci suuf boole sama ñaari tànk yi daan waaw Ibou Senghor ñu ñëw ci lutte simple nga fës ci lool macha allah euh, kañ nga dugg lutte simple wala ñaata drapeau nga ci am. Ah, Ligue simple nag maa ngi ci dugg ay deux mille 2008 2009 yooyu laa ci dugg mais ci luñ may ci ñu jàpp daal nañ mën a am na ay 140 daal yooyu lañ ma jàppal saa compter ay yi ak li ma jël ren ak daaw yëpp 140 drapeau daal lañ ma jàppal ci lu ñu jàpp ndo ay sans compter ak yooyu ak yeneen drapeau yi ci lu ñu jàpp daal la ñu wax quoi waaw 2008 yooyu 2009 daal laa dugg waaw waaw. saa boo ñëwee ba am na nooy ñëwee dugg dugg si bu doy waar. sotteeku suuf si euh, yor euh, yëre Baye Fall bi ñu baal ma sama mbokki Baye Fall yi parce que man Baye Fall laa comme ñoom ah euh, loolu lan lan lan mooy ne ci yow boo ñëwee da ngay am ànd ak doole joo xam ne xadar joo xam ne beneen affaire loolu moom dafa nekk ci sama déreg des fois sax léegi sax damaa demoon ba tax ba commencé di ko wàññi parce que gars dañ ma doon jëñ diggante ak yàlla rek moo tax bay dañoo yaakaar damay jëfandikoo dara wala ak yàlla. dara comme la. waaw comme damay mandi wala nan ak noonu mais loolu dafa nekk ci sama déreg man du ma naan duma ma tux du def dara lekk bo suur dem entraînement sama koñ fii damay des fois waa sama koñ bi damay naan ndax néew des fois damay am lu mat deux mois yoo xamante ne boo ma gisul may génne sama may génne di dem entraînement di xëy wala may gont ji man entraînement lekk bo suur dem ñëw rek laa xam loolu moom dafa nekk ci sama deret man du ma xëyee dégg galañ bi dootu ma mën a teye sama bopp loolu moom dafa nekk ci sama deret ba laax yi doonu moon poids bu doy waar ñu ne da ngay jël affaire wala leen waaw comme daaw mu xaw ma arrivé loolu daaw waaw loolu moom dëgg la moom damaa jëloon loo xamante ne bokk ci osoor man du ma tricher man ci naturel man damaa naturel man du ma fen du wax loo xamante ne mooy loolu damaa defoon loo xamante ne bokk ci sport te nit yi kenn mënu leen nax mais buñ ma xamee bu léegi loolu kenn mosuma ko woon gis daaw la woon man lu ma ci dal itam ñi nii gis nañ ko fin de saison bi daaw sonoon naa trop mais yàlla dimbali na mag sama internet 3 heures ci bëtik a yóbbu ma dawle ci ñaar bi tam boo loolu ma ñëwee ren yéen yëpp gis ngeen ko waaw ni ma ñëwere nii rek gis ngeen ko di jégalu ci samay supporter parce que man bokk naa ci mbër yoo xamante li may sumeeku ñu naan sawaay amul doole bariwul man entraînement rek laa gëm góoma leen lu dul entraînement barke alxuraanu kaay entraînement rek laay def dufum dama def leen lu dul entraînement billaahi waa di leen ci jégalu bu baax a baax a baax nga xam ne nit moo matul waaw parce que nit boo amee jom dafa am lu am lu bari yoo xam ne da nga koy jomb ko billaahi da nga koy jomb loolu la mais du dara nag maa ngi leen di jégalu bu baax a baax waaw. ren ñaata drapeau nga jëlagul. ren en tout cas daal lu mu bon bon baal li ma bëri nag dafa bëriwul xam naa daal ay sept wala huit yooyu daal laa yaakaar ne la am quoi ak ñaari final beneen bi maa euh, obali daf maa gagné woon par poye beneen bi euh, ma jàppatuma daal maa gagné mais defe naa daal ñaari final yooyu rek laa ñàkk tool beneen bi kii général Malick moom ma daanoon final fii Adrien Senghor waaw ñaari ah ñetti final beneen bi booy fay daan na fi itam final quoi mais ci des yëpp dama koo jël nag waaw ñaari final yooyu ñetti final yooyu laa ñàkk mais yu ci des yëpp dama koo jël parce que li ma bëri lan moom bariwul noonu dara bariwul dara aussi sama combat bi def ma arrivé woon ci. Euh, sa diggante ak Serigne Ndiaye numéro 2 lan moo xew. Serigne Ndiaye numéro 2 sama diggante ak moom nag euh, dara xew xanaa du du doonu sama adversaire rek vraiment itam maa ngi koy nuyu sax au parce que. waaw Serigne Ndiaye xam nga ñaari yoon lañ bëre. six fois lañ bëre man quatre fois laa ko daan daan naa ko deux fois gagné ko ñaari yoon moom benn yoon la mos a daan gagné ma par poy yoon kon kooku aw ma li ma ciy ragal ci moom sama sama làmb ma ci amee waaw. xam nga rek dañu xam nga rek des fois mbor moom boo ko sonalee ci yeneen yi xam nga xam nga des fois def lay jéem a indil yeneen yi man wax dëgg bàyyi faa laa yooyu man dundu ma ci man damaa jàpp ne làmb ji moo ñuy boole mooy suñu métier ci war a def suñu ful ak fayda kelemeer gañ nga dem seeti leneen ma dem seeti leneen man loolu laa jàpp ko waa vraiment wax defa ne la Serigne Ndiaye quatre ko am mu am ma deux boo lay wax jàpp ne dafa mel ni rek rek moo xaw a sonal mbaru séeréer yi waa en tout cas nag waa sant yàlla eh, wax dëgg fa ne yàlla booy xool at yi moom vraiment wax dëgg lu mu ciy jël kenn ci jël ko may itam xëy na loolu damaa jàpp ne rek may yàlla la parce que ay nit man li may faral di wax nit da nga maa mën a ëpp warteg mais mënoo maa ëpp moom yàlla may ko kenn ci àdduna mën nga ma ëpp warteg na mais mënoo maa jom amul yàlla may ko kenn ci àdduna xëy na damaa jàpp ne loolu may yàlla la rek nit ku ne ak la yàlla maye parce que da ngay gis o xamante ne tey gi kii di dawal saret kii di dawal 4-4 kii am étage kii am kii ñàkk am ker bon loolu yàlla maye suñu yàlla suñu borom la daal damaa jàpp ne daal yàlla xëy na moom ko may mais tawul mu doon loo xam ne mu daan ko ba moom ba mu wéddi bon nga xam ne mu ci am rek yàlla suñu borom moo ko koy jagleel waaw man mos ko daan fii final deux millions waaw Ibamar waaw bo ak léegi moom fayu na kay bu double ma woo waaw waaw bu double ma woo a ah, yow xoolal ron gi li ma fi seetaan li ma seetaan fii ren Dakar yaakaar naa at yi yëpp seetaanu ma ko fi barki Serigne Touba te bëgg dara rek barki yàlla sama bëjën fii laako sam samp ren li ma bëri fii ren Dakar est-ce que gis fi bëri de di ba may door a fal ba léegi laa ko te boo ko laajoon tey amateur yi dañ la ko wax chaque dimanche maag moom ñoo doon mbokkante bi te bu fi tase woon

non non du ma ci am xel yaat bu ma ñëwee nii dugg ci ni affaire bi gis ponkal yi yëpp bari ci may sawar parce que boo ko jëlee sa promotion la mais boo ñëwee si fekk ñoo maa leen mon du neex mais bu ma dugg see fekk fa ponkal yëpp samay moroom ñëpp damay kontaan parce que leer na leen lamb ji bu dee sam warteg la comme champion yëpp yëpp tey boo ñëwee fekk fa caaka fay fekk fa rëg fekk fa sirana malikal fekk fa ngel jon ah xam damay bañ a lum juum fekk fa gars yi yëpp ñooñu boo leen fekkee ci géew bi ah da ngay kontaan ndax dina leen na ñii bu ma yàlla dimbalee bu ma daan leen jël lambu ji promotion bu rëy la mais boo ñëwee fekk fa boo yu ndaw yi xam nga loolu boo ko jëlee amul problème parce que boo laajee ne ah quest moo fa newoon moom kese rek du neex quoi mais boo ñëwee fekk fa ponkal yi mu lëla li ri moom darti darti dégg la boo ko jël promotion la da nga ciy kontaan bu baax man loolu moom may yëngal waa loolu may yëngal waaw way est-ce que mës nga bëre ak nit bu ñu jël sa licence ndax da ngeen mayante waaw mos naa am ku ñoo bokkoon écrit waa léegi sax bàyyi na sama benn grand parce que ñu desa Adrien Senghor man mënuma bëre moom après ma stéro quoi julee sama licence bu aj ma au moins daal waaw mais boobu ba léegi moom wax dëgg amatul quoi waaw boobu ba léegi déedéet déedéet boobu moom mayeetu moom parce que ñi ma bokkal fii écrit sax les fois ay ñoom ngoor ngan ñoo bokk écrit mais bu naree dem dimanche bi ma toog su may dem moom itam mu toog waaw mais jeex na lu ci des yëpp gars yëpp damay bëre ñoom ñoom ñëpp damay bëre ñoom waaw ñoom ñëpp damay laalante ak ñoom waaw amatumat tam kenn ku may mayantel essence bi ñoom ñëpp laay laalantel waaw ñoom ñëpp laay bëreel moom. kat mooy boo xam ne saa bu boo duggee làmb ji rek fekk muy woy rek nga am loo yëg loo xam ne day mel dali yokk courage. ah vraiment woykat yi de moom booy xool rek leen gi la ñuy woy quoi ñoom ñaar yëpp vraiment daanaka di mbayang mooy Ndey Faatu mooy Xadi Ngom ñooñu ñëpp de ku ci woy dama ciy sentir sama bopp vraiment wax dëgg fan yàlla sax ñu ma ciy far fenn wax dëgg fan yàlla ku ci woy daal damay yaakaar ne keneen gi mooy woy waaw ku ci woy damay yaakaar ne keneen gi mooy woy waaw des sax ma def ba def loo xamante ne sax damay des fois damay dëgg bëri ci quoi waaw vraiment ñoom ñëpp wax dëgg fan yàlla daal waaw ay dëggkat lañ quoi wax dëgg sentir naa leen ci woy ma wax dëgg vraiment wax dëgg fan yàlla ñoom ñëpp ñoom vraiment wax dëgg sabar yi tey gi moom boo waxee Maodo ah Momo Ngom ah gars yi koo ci waaw ñoom ñëpp ku ci dégg daal da ngay yaakaar ne kii amoon sa moroom ñoom ñëpp nag way tëggat tëggat yu euh, làmb yëpp nag ku ci dégg rek da ngay yaakaar ne kii moo mën keneen ki bilaahi ñoom ñëpp a mën a teg vraiment wax di fa neex la lépp affaire bi mu man damaa jàpp ne gars yi dañ maa ñemewul rek parce que man ku bëre onze combat dix victoire man fi ma nekk nii di wax ak yow waroon naa mën a dépasser fi ma ànd nag te suma ma amaatee combat di nga gis lu yéeme gars yi fu mu ne nii luñ may waajal gis nga waa axlu kafe bi waa suti Sodiba Seras Tataguine Diofane fii yombal gars yi daal dañ ñoom daal gars yi daal mer la fanaanoo ñoom nee nañ ma daal sama combat soog daal lañ may xaari fu mu ne nii combat soog rek lañ may xaari fu mu ne nii tey gi Malick Niang 11 combat la am 10 victoire benn défaite man 11 combat la am 10 victoire benn défaite kooku maag moom lu ñu taxali yàlla suñu borom xam na ne nee naa leen te chaque ma koy wax gars yi bàyyi ñu ci xel man bëre door amul mbasum mbër bu ma ci mënul daan ki ci gën a sawar dëgg dëgg dëgg dëgg mooy kuy xeex billahi walaay boo moy diwub dinaa la daan ba nga dem sa kër a la kalkin ni ma la daanee barki alxuraanu karim te li lay wax ni nekkul loo xamante ne ma ngi koy caaxaane ak sama diggante ak yàlla billahi walaay ci wéeru góor ne ku ma joxoon avance am balaa lekk ma def ko ni ma ko ni war ma dugal ko fi ma ko war a dugal billahi walaay taala ak door yeeg ak mën a bëreem yëpp ak xereñtam moo tax gaa yi di ko moytu barki yàlla dafa mën a bëre bu pare mon waaw mu doon adversaire de détail moo tax gars yi di ko moytu ndax am benn défaite gars yi di la def nii bon dañ ko ñemewul rek mais yàlla suñu borom xam na ne ku ma joxoon awasam lu des ci guddi gi tey billaahi ma wonu ko ah Bébé Saloum mu ngi amul combat dégg naa muy te jalli la mu njee daan yaa ngi dégg dégg naa muy wërti jàng chaque jour jox leen ma ay bombardier te man maa ngi ni ñooñu xam nga ne ñooñu muy laaj mënul laalan ak ñoom kooku maag moom maag moom combat la sérieusement parler man 11 combats 10 victoires man kenn mënu maa bañ bu mu ne nii ci làmb sama morom bi ma ci mën a bañ amul ñoom ñëpp amul ku ci def làmb loo xamante ne man defuma ko tey boo xoolal li ma def ci àdduna ci bëre buñ ko mënoon teg ci écran pala nga koy xool di xool xool bu mu jëm dina xam ne jaadu na sax ma bëri du waa di sarem jaadu sax ma jàkkaaroog du waa di sarem di bëre ak moom waxatuma la nag ñoo xamante ne egguñu foofu ñooñu war nañ mën a ñoom ñu laalante waaw bébé Saalum Malick Niang ah Elton ñooñu yëpp samay adversaire la ñu war na ñoo mën a laalante war na ñoo mën a bëre ñu jàppalante suñu biir ñu waaw ñow loolu yoo amul problème man grand buñ ma joxee avance ma préparé combat 3 mois 4 mois wala 2 mois dugg fu war a dugg ak samay antenne di yëg din di dugg si saal yi bilaay bu ma sumee ko nga ne kii du Ibou Senghor barki Serigne Touba samay combat yëpp musuma ciy sumeeku te nit ñi jaaxale ñu man sama dër bi man dama ciy ñemee bilaahi man daal loolu la am daal li ma yóbbante gars yi nañ mu utal combat bu saf fu mu ne nii gars yi nag dañoo pare tous les côtés tous les côtés ñoom dañoo pare dañoo gaynde ay mer lañ léegi am naa ñoo xamante ne tey gi taada gi ñoom Ndongo Saar ak ñoom Adama ñooñu dañoo fosé ne dugg ci autorité yi taada gi ñëpp bu mu amaatee combat ñu jàppale ma autorité fi nekk yëpp ñoom ñëpp dañoo mobiliser yu jàppale ma ñoom loolu daal fu mu ne nii daal loolu lañ pare loolu lañ pare moo tax it maa ngi maa ngi rey sama bopp ndax combat bett ma wala ak leneen leneen waaw ilaahi waaw Ibou Senghor ginnaaw bu ñu bu ñu waxee say adversaire yow ñaar rek nga fi lim waaw ñett rek nga fi lim hmm? euh, bu ñu génnee ñetti ñooñu xam naa dina dana doy waar tuuti ah mais ci euh, lan lan lañ la def ci làmb ji loo xam ne saa boo ko fàttalikoo rek bëgg a jooy. man mille francs yi di gars yi ne fii di bindoo man wax dëgg fa neex la maa ñàkk a pexe mais neexu jóge fi nga jógee da ngay amaana da gis mboor boo xamante ne day seetaan sax ñaan paas ñu may ko paas nga ñëw nga fayloo ko mille francs ah mu ñëw bëre premier tour ñu daan ko. mu war a lijjantiwaat li ko paalloo li ko li ko li ko euh, li ko ñibbaati keram te bu mu ñëw ñu may ko paas loolu itam wax dëgg suñu kilifa yi ko teg wax dëgg waroon nañ ko seetaat bu baax amul ca benn mbor bu ci andi benn mbor bu ci and mais ñun mbor yi itam dañu amul fula suñ suñ biir biir war nañ comme mburu aareen yi ni ñu def nii tey am seen président am ku leen kaasal am ku leen doxal ñun ñi waroon nañ mën a toog waxtaan suñu biir seet benn kilifa ancien gul war ci ñun ci mbër simple yi mu jiital ñu am lu ñuy kaasal am lu ñuy bañal mais ñun amuñu kenn ku ñuy kaasal barke Serigne Touba Mbacké lu ñu teg ñu nangu ko mënuñu ban dara amuñu bañ ñu kilifa boo xamante ne jiite nañ ko te suñuy sport ñun ñuy wax dëgg ay référence lañu billahi wala ay référence lañu ay champion ay ñu mën bëri am doole ñoo nekk ci bëri simple bi xanaa ñàkk am jàppale moo la tey fu gaa yëg yëguñu fa mais waroon nañu am koo xamante ne mooy tey kii moo ñu jiital am lu ñuy kaasal am lu ñuy bañ bëggoon naa gaa ñu def ñu ñun waa mbër simple yëpp nag ah ñu mbër yi yëpp seet biñ ko wax kilifa boo xamante ne moo ñu dañu teg suñu kanam mujjee te ñu am lu ñuy gàttal parce que vraiment wax dëgg lu ñuy teg neexul daal vraiment neexul wax dëgg mbër bi booloo doon benn te ñu tere waa def association te du tere bu ñu tasee ci làmb ji lu mu laaj ñu def ko suñu boor comme mooy suñu métier lu mu laaj ñu def ko suñu bër waaw bëre moo ñu war bu ñu tax liggéey bu ñu bëre bu jeexee jeex na mais teewul ñu def association boo xamante ne tey gi lépp lu ñuy tëggat yi te neexuñu ah ñu def ci ñaxtu waaw ñu def ci ñaxtu xam gars yi xam ne lii ñu bëgg a teg ñuy def neexu leen waaw ci sama xel bu gàtt waaw euh, léegi lan moo la ci gën a neex loolu xam ne seetlu nga ne lii moom dox na amul problème ci yow ah làmb ji moom vraiment booy xool fi mu ne nii wax dëgg sant yàlla bu baax ndax bu bëri simple bu ñu demee ba ci teg ay million wax dëgg vraiment mu ngi dox di dem ñu ñaanal promoteurs yi yal na leen yàlla gën a jàppale vraiment wax dëgg ñu ngi soxal làmb ñu ngi jàppale làmb vraiment mais bëri simple loo ci teg loo ci teg rek xeeb nañ ko defam métti dafa métti benn ngoon nga bëri lu mot 7 combat wala 6 combat ah vraiment nga gis koo xamante ne benn combat ñu fay ci ci ci waay am rek da koo mérité yow bilee bu mu sax ñu dem publicité daal vraiment ah. nga jël ba son dodo am dara te ñooñu tëmbul nag léegi bon wax dëgg ñun itam mën nañu sant yàlla bu baax a baax daal waaw di ñaanal promoteurs yi may gudd fan ak wérgu yaram nu ngay rakkam ñëw toog ak moom. ana lan nga mën a wax ginnaaw ma sant yàlla julli si bi sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Pikine di nuyu waa axlu làmb kii moom sama grand bu baax la Ibou Senghor ku respecté lu muy def la ku ko gëm la tamit parce que mooy suñu grand ñun ñu nekk ay boy ndaw nekk ci ginnaawam mais entraînement da ko respecté ñu ñii ñëpp daf ñuy teg ci yoon heure entraînement ñun ñëpp muy ku nekk da lay woo téléphone jugal heure bi jot na boo nekkee foofu di jéem na ko saf sax nga gis dala ci da lay woo la respecté woo li ngay def affaire bi moom boo ci nekkee danga nga koy gëm carrière bu mu ci am nii ñun ñëpp def ñu koy ñaanal te tamit day wax ni respecté sa bopp rek na tax nga yegg gëm sa bopp kon nag ki wax dëgg fa yàlla gëm na lu muy def bu ko gëmuloon di yegg si fii tey ku bëre 11 combats 10 victoire benn défaite moo ni làmb ji tey am na am na ay champion nag mais tamit moom ci champion la bokk tey fu ñu limee kenn tey lim ñaar tey moom war nañ ko cee boole muy mu ñetteel leen. waa xanaa di leen gërëm rek di leen sant bu baax di leen ñaanal gudd fan ak wér gu yaram loo leen bëgg yàlla na ko xam yàlla na ko yàlla suñu borom defal di sant sama gara Moussa Seck yàlla na ko yàlla fay Seex fay jën ñi écrit ba yëpp ay ñoom ngor nangaan gaa yi ma ci kenn daal mafia bi yëpp di sant waa Pikine ñëpp na yéen a ko gisandoo Ibou Senghor a ngi noonu a 2 di ko jaajëfal waaye tam di nuyu équipe Leewtoo yëpp nii lañ ko fas yéene jàppoo mbër bu ne fa nga ne ak cala nga ne ñu fekk la fa waxtaan ak yow ci làmb ci sa tolluwaay ak ni nga gisee làmb di nuyuwaat équipe bi yëpp Aïcha Faye ñoo ngi koy nuyuwaat bu baax a baax moomoo yàgg ñu ngi lay jaalewaat sañ Béthio mi ñu bokk waaye calis ñoo ngi lay baalu ak ci koor gi di la baal ak di la ñaanal jàmm yàlla na jàmm sax dégg ngeen ko axlu kafe gi beneen axloo ngi doon jërë ngeen jëf ba beneen incha allah